Euh, jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen a ngi teewlu seen télévision ma fatel bi sëriñ ñi nga am mbégte bu baax a baax euh, defe naa ne jëmm ji euh, jàkkaar lool deseetu ko laaj ci yoonu murit rawatina télévision bi nga xam ne mooy ma fatel bi ni sëriñ Ibrahima benn mooy bokk na ci bi nga xam ne mooy bisu xasida bi waaye sëriñ Ibrahima Guèye bokk ci ñi nga xamante dañuy jàppale sëriñ Amsatu Mbàkke ci liggéey bu tedd bi ñu bëgg rek sëriñ Ibrahima ci ak tënk rek nga ñëwal nuñ ci waajtaay bi nga xamante mooy waajtaayu nañ koo waaj te muy màggalu xasida yi ñu koy ànd ak ki nga xamante ne mooy sëriñ Amsatu Mbàkke moom euh, sëriñ Chouhaïbou Mbàkke nga xam ne saa soo ko waxee xel yëpp dem ci xasida yi ana boo nu doon tiiral bilan tey ci waajtaay wi lan nga nu ci wax ak li nga xamante ne moom ngay def ab yóbbal ci ñi nga xamante ne ñooy ñëw ci bis bu am solo bi nga xam ne tey àdduna bépp ñu ngi ñuy seetaan ci fépp foo xam ni nekk nañ fa jóge àdduna bi asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu waaw di sant rek ndax bis bi moom wàccaa waaw maanaam loo xalaat ci ay xeeti wàccaay fu sa xel yem rek sëriñ bi waaje na ko raw dongo yi fekk si ko ci ñoom it waaje noonu nu ko raw wax dëgg yàlla bi sëriñ bi yégée ni jàpp nañ bis ba fii ma wax yow moom ci boppam noppaluwut ñi ànd ak moom ci ginnaaw di ko di jàpp ci liggéey bi ñoom it noppaluwunu sëriñ bi lépp lu xam ni bu ko wutee ci wàllu gàtt wàllu naan wàllu xéewal gu ngay xalaat ak gu ngeen xalaatut maanaam fàggu na ko ngir gan ñi fi nekk kenn bañ a tumuraanke te ñëpp bég bisu Sëñ Tuubaa la ko jàppe ak cant Sëñ Tuubaa la ko jàppe waaw ak dolliku gu wér it la ko jàppe waaye liñ ci def ci ay ay ay ay xéewal maanaam mënu si ko xayma ndax ay waañ yi nga mujj def ndax li xéewal yëpp mënu si ko toggono ci benn barab te wóor na ma ni waañi maanaam jigéen a téeméeri waañ te waañ wu nekk la fa war ci gàtt ak la koy togg lépp maanaam sëñ bi taxaw na ko ba mat nga xam ni euh, loolu moom du lu mën a xiyaas ci am xel waaw ndax génn bëccëg buñ ne leen maanaam rey nañ ci lu ëpp téeméeri nag maanaam loolu maanaam jiggi na dayo te naan it noonu kenn mënu ko ma waaw ak xeeti xéewali fur wi yeeg lu ngeen xalaat ci ay wàccaay ak baas yi ngeen gis nga xam ne waa xel comme baas dégg nga ak maanaam loo li ngeen xalaat rek ci ay ay taxawaay rek maanaam ci biir ak ci biti ak ñiy setal ak ñiy buub ak ñi defar wanag yeeg lépp rek maanaam sëñ bi moom bàyyiwul dara waaw waaye daal ñu ngi koy sant da xam ni xasida yi jaral na ko waaw ndax dafa dafa miraasu jaay léppam jënd jënd ko maanaam ngërëmal sëriñ bi ci bis bi kon nag ñëpp nañ ko maasal mu ñaane maase ñaanal mu yàgg fi te wér doon ngi li ñu am lépp def nañ ko ci dem nañ ci seenu ñaq gën ñoo noppalu ñii ngi ci baas yi ñii ngi ci matt mi ñii ngi ci togg yi ñii ngi ci lépp ñii ngi ci xasida yi ñii ngi ci durus bi euh, ban yóbbal ngay jox ñi nga xamante ne ñooy ñëw waaye xam ngeen sëñ Ibra am na ñoo xam ne tey am nañ yéene ñëw ci bis bi seenu ñaq ñëw na waaye ñoom yàlla dogalul ñëw ña nga bitim réew ñoom it ban yóbbal nga leen di jox waaw bis bi moom képp ku ñëw da nga xam ne bisu xasida la boo bokk ci benn commission di yëngatu ñu teg fi barab li baax ci yow te gën mooy nga dem toog fi barab jublu penku jàpp sa xasida durus képp ku teg fi barab it barab ba lum sori sori wala lum jige jige jàpp ko te xam ni foofu la sa ngërëmal sëñ Tuubaa nekk ci bis bi ñi sori it kenn ku ci nekk ci bis bi na nga daal di yeesal sa pas-pas yeesal sam njàpp raxasaat sa xol jublu penku boo ko mënee àndandoo ñun ci bis bi nekk boo fa mënee nga def ko ñu àndandoo ko ba faaw ndax bisu xasida la waaye nekk mën na ko faa defe c'est que màggal Tuubaa la nekk maanaam dee ma sant ci bis bi te it kon bis bi it fu waaye mën a nekk boo ànd ko àndandoo ñun mel yaa ngi teew Uh -huh. Euh, jërë ngeen jëf mbokk yi loolu mooy kàddu yi nga xam ne moo bàyyikoo ci sëriñ Ibrahima Gueye Xasaayit waaye dégg ngeen ko muy kàddu am solo waaye dafa mel ni def na bilan ci mbooleem li nga xamante ni moo fi jaar ci ay xeeti waajtaay moo xam ci ay xeeti bernde la moo xam ci ay xeeti waajtaay yi nga xamante ni gan ñi dañ koy soxla li ko dalee ci ay baas ba ci ndox mi ñu naan loolu lépp di lu am solo kon ñi ngi ñaan mbokk yi ñëpp fépp fu waay nekk di seetaan télé bi mu ñaanal sëriñ Amsatu Mbàkke mu yàgg fi loolu tawér insha allahu taala nii rek lañ ko fas yéene amale dinañ amal insha allahu taala ay interview waaye dinañ amal ay entretien insha allahu taala